nan ngay def ba libérer sa waaru téléphone te doo supprimer photo doo supprimer vidéo te doo supprimer benn fichier nan ngay def boo ko bëggee xam laalal plus bi nga laal j'aime bi mooy abonné nga ci chaîne bi bépp vidéo boo xamante ne dugal nañ ko fii di nga ko gis incha allah aboneel gaaw ñu ñëw fekkee def nga ko abone nga laal nga j'aime bi pour nag jot yeneen vidéo yi nga xamante ne ni tamit dina la jàngal naka ngay def ba utiliser sa téléphone nañu dem ci astuce bi jaajëf merci beaucoup. et voilà pour nga mun ko def da ngay ñëw fi appel bi après nag nga tapé étoile dièse quatre nga def dièse. dafay jeez bu ñëwee dina lay indi liste bi nii da bàyyi bii ñëw ci deuxième bi deuxième bi lan lañ ci liiral bu baax nga ñëw laal deuxième bi dina jël temps nag tuuti mi ngi libéré mémoire bi mu ngi recherche fichier yu bon yi yi nga xamante ne ni nit ki du ko utiliser ci téléphone loolu lépp nag day analyse ba wër ko daal di ko koy dindi mémoire bi daal di oyofant bu fekkee vidéo bi intéressé na la ñu ngi lay ñaan nga daal di laal j'aime bi def sa commentaire pour yeneen vidéo su ko defee nag dina jël temps tuuti parce que mémoire bi gëj naa ko def ba pare télé fichier yu ngay xamante ne ngay télécharger ay fichier des fois di connecté wu maanaam daal dafa mel ni oto boo xamante ne dafa doon daw ba huile bu dee huile bu dee bi da koy génnee bu dafay yàq sa oto nga changé waat beneen huile li moo tax téléphone bi nu noo ko gëj defee rek muy gën a yàgg su ko defee nag euh, dañuy dagg vidéo bi ba mu jeex ñu ñëwaat. te voilà jeex na jeex na tàkk léegi nag nan la def dañuy def ok te voilà ñu delluwaat nga redémarrer téléphone bi redémarrer téléphone bi fii ngay laal daal di redémarrer. téléphone bi mu fay tàkkaat su ko defee mbokk yi merci beaucoup di leen wax ni ngeen aboné ngir yeneen vidéo jëf